salaamaaleykum mbokk yi saxoo topp eh, seen émission sunu yaakaar amaat nañu mbégte dellu si waat fii di jiital rek ci nuyoo ñëpp ku ci nekk si turam ak si santam di ñaanal ñëpp jàmm ah di ñaan tam ñi nga xam dañoo tawat yàlla fëgg seen bopp bu ñu jóg delluwaat seen yëngu-yëngu amaat nañu mbégte teewaat fii ngir wéyal jukki yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci téereb màcc te mu bokk ci injil tey nag ñu ngi si màcc saar ñaar fukk moom lañu fas yéene jàng di léebu baykat yi ñu jël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 ak ci tisbaar defaat noonu mu génnati ci tàkkusaan gis ñeneen di tendeefal mu ne leen lu tax ngeen yendu ten yendoo tendeefal te liggéey ju leen ñu ne ko kenn jëluñu mu ne leen dem leen yéen itam ca tool ba bi nga xamee ne timis jot na boroom tool ba ne jëwriñ ya woowal liggéeykat yi te fay leen seen bëccëg tàmbali ci ñu mujj ñëw ba ci ñu jëkk noonu ñu mu mujj jël ci tàkkusaan ñëw ku nekk jot posetu denariyon gannaaw ga nag ñu mujje jëkk jël ñëw ya yaakaar ne dinañu jot lu ëpp loolu waaye ñoom itam ñu jot ku nekk benn denariyon bi ñu ko jotee nag ñu tàmbalee ñaxtu ci boroom kër ga naan ñu mujje ñëw benn waxtu rekk lañu liggéey ba noppi nga yemale leen ak ñun yenu coono bëccëg bi ak naaj wu metti wi waaye boroom kër ga ne kenn ci ñoom sama waay tooñu la ndax juboowu woon ak yéen ci benn deneer yoon kon fabal li nga moom te dem su ma bëggee fay ku mujj ñëw li ma la fay yow ndax sañu ma def ak sama alal li ma neex wala ndax danga danga am kiñaan ci li may yéwén noonu ñu mujj ñooy jiitu ñu jiitu ñooy mujj Yeesu xamle ne ñetteel bi yoon dina dee dekki gannaaw loolu yeesu di dem yerusalem ànd ak fukki taalibe yi ak ñaar noonu mu wéetoo ak ñoom di leen xamal ci yoon wi lii ñu ngi jëm yerusalem te dees na jébbal doomu nit ki saraxalkat yi yu mag yi ak xutbakat ya dinañu ko àtte teg ko dee jébbal ko ñi dul yowut ngir ñu ñaawal ko te di ko dóor ay yar ba noppi daaj ko ci bant waaye sa ñetteelu fan ba dina dekki li doomu lidoomu yi ñaani yeesu ci kaw loolu doomu yi ànd ak seen ndey ñëw ci yeesu ndey ja sukk di ko ñaan ci lenn yeesu ne ko loo bëggoon mu ne ko dama bëggoon nga santaane ne boo nekkee ci sa nguur sama ñaari doom ñuy toog ak yow kenn ci sa joor ki ci des sa càmmooñ yeesu ne ko xamu leen li ngeen di ñaan ndax mën ngeen a naan kaasu naqar bi may naan ñu ne ko mën nañu ko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 ñu daal di yuuxu ne ko sang bi yow sëtu Daawuda yërëm nu waaye nit ña gëdd leen ngir ñu noppi teewul gumba ya gën a yuuxu naan sang bi yow sëtu Daawuda yërëm nu noonu yéesu daal taxaw woo leen lu ngeen bëgg ma defal leen ko ñu ne ko sang bi na suñu bët ubbiku noonu Yeesu yërëm leen laal seeni bët ñu daal gis ci saa sa topp ci moom kon lu ñu mën a tënk rek ci saar ñaar fukk bu màcc bi mooy ne gisoon nañu ni yéesu doon waxe taalibe yi ni di ñu ngay dem Yerusalem te foofu dina fa sonn dinañ ko àtte te ko dee jébbal ko ñu dee yow ñu toroxal ko dóor ko ba noppi daaj ko ci bant waaye moom dina dekk si ñetteelu fan ba gis nañ tamit léeb bi nga xam te ni yéesu jëfandikoo woon na di borom di baykat bi bëggoon ñu góobal ko toolu résiñam mu jël ay liggéeykat ci waxtu yu wute ba noppi ñoom ñëpp mu yemale leen fay mu jàngale foofu rek ni ñi jiitu ñooy mujj te ñu mujj ñooy jiitu ci donc gis nañ tamit ni Yeesu ni mu continué woon di wane yërmande ci nit ñi xam dañu amoon ay jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram doon dem jóg doon dem ci yoonam ay gumba dogale ka di ko ñaan ngir mu ngir mu wéral leen taalibe yi sax ñu ngi leen doon gëdd naan leen noppi leen waaye gumba yi wéy di sax di yuuxu rek naan yow sutub daawuda bi yërëm nu noonu yéesu laaj leen lan ngeen bëgg lu ngeen di xaar ci man ñu ni ko dañoo bëgg gis mu defal leen li nga xam te loolu lañ ko ñaan kon fii la ñu yem tey sunu gëstu bi suñu jukki bi ci téereb Matthieu saa ñaar fukk leen gërëmaat di leen sant di ñaan leen rek leen ni mën ngeen ñoo bind wala ngeen jokkook ñun su ngeen ko bëggee ci numéro yooyu ngeen di gis wala ngeen bind seen i laaj wala seen i xalaat ci suufu njàngale yi nga xam ni moom la ñuy def di ñaan yàlla mu barkee leen ñu ngi leen di jox dox daje ay bés yi di ñëw ci yeneen jukki jërë ngeen jëf